mbokk internet euh, net bi TV euh, dal leen ak jàmm seen actualité du jour euh, ñu daal di koy dooree li ñeel wàllum yoon si ki nga xam ne mooy Falidou Keita moom mi nga xam ne moo fi jiite woon li ñeel wàllum coordination nemmeeku tour bu njiitalu Pastef di Ousmane Sonko moom Falidou Keita nag gannaaw biñ ko tegee loxo niki tey lañ ko doon atte liñ koy toppee nag bokk na si ab xibaar boo xam ne rek def ko fësaloon ci ab page Facebook am doon addu ci Didier euh, Badji ak ki nga xam ne mooy Fulbert Sambou mi leen nag mu daal di woon euh, posté ci page Facebook mu doon si def ab taxaw seetlu mi lee di Falidou Keita ñu daal di woon ko teg loxo moom nag niki tey lañ ko fas yéene atte bu ba tey ñu daal di desandi ci wàllum yoon ki nga xam ne mooy mbër mi Ada Fass ne mooy El Hadji Ada Ndiaye ñoom ñi nga xamante ni rek dañ leen tuddoon euh, ci wàllum sàccum moto ñoom ñaar nag dañ leen condamné am na lu tollook ñaari atu prison yoo xam ne rek benn at bi la ñuy tëdd ci prison ak benn amende bu tolloo ak un million cinq cent mille yoo xam ne rek dañ koy daal di jox ki nga xam ne rek mooy Ndiaga Ndiro Ndoye moom la di Ada Fass nag suñu fàttali dañ koy toppee mooy wàllum sàcc waaye tamit association de malfaiteurs ba tey ci wàllum actualité bokk na si manifestation yi nga xam ne rek daal dinañ ko nemmeeku lool ca diwaanu Ndakaaru ay oto yoo xam ne rek daal dinañ ko fay taal ak ay yàqu yoo xam ne rek daal ko koy nemmeeku ca diwaanu Ndakaaru yoo xam ne rek ay manifestant ñoo ko daal di def ci loole nag ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome moom nag daal dinay xam ne ni rek dinañu jël ay matuwaay yu doy sëkk si ñooñu ñi nga xamante ni rek jamono ji ñoo nekk ca diwaanu Ndakaar ñuy tàll waaye tamit ñuy def ay xeetu ñaawteef ci yile manifestant sax ñi nga xam ne bokk nañ si ñi nga xamante ni doon nañoo taal ay oto waaye tamit ay këru jàmbur jamono ji am na si ñoo xamante ni rek daal nañ leen tekk loxo ba ñu ngi si loxo ya yoon ñu daal di àddu wax li bi nga xam ne kii di njiitalu Pastef di Ousmane Sonko doon na ko amal niki baax a baax ci li nga xam ne rek yile force de l'ordre daal nañ ko jàpp à part la force ñu daal di ko yóbbu ca diwaanu Ndakaaru ci loole nag ñu daal di woon a gis kii di ministre de l'intérieur mu daal di woon a xam le ne yile takk dara dañoo fekkoon ci biir oto Ousmane Sonko ngandaay yoo xam ne rek moom njiitalu Pastef di Ousmane Sonko amul woon na benn autorisation ngir rek mu daal di yore yile ngandaay kii di Ousmane Sonko nag dana ci àdduwaat ni ki démb ci ab déclaration bi mu doon amal mu daal di si àdduwaat bu baax a baax indi si ay leeral ci loole sax moom Ousmane Sonko daal di xam ne ni rek benn arme la yore woon te arme boobu sax dafa amoon autorisation ngir rek mu yore bile arme waaye nag yorutoon beneen arme boo xam ne rek kii di Antoine Félix Diome daal di koy wax ba tax rek moom Ousmane Sonko mu ngi daal di xam ne rek it kii di Antoine Félix Diome waxul benn dëgg si loole sax moom Ousmane Sonko daal di nay àdduwaat woote ci lan moo tax mu yore bi lee ngànnaay mu daal di xam ne ni rek dafa nekk ab homme politique bu mag a mag ba tax rek jamono ji mu daal di yore ab arme boo xam ne rek dina si mën a ar boppam ci bile déclaration sax moom jiitalu Pastef di Ousmane Sonko dal di woon a àdduwaat bu baax a baax doon na encouragé ñi nga xam ne rek ñooy ndaw yi ngir rek ñu gën a résister ngir jàmmarloo ki nga xam ne rek mooy président de la république ndax rek dafa jàpp ne jamono ji kii di Macky Sall ko daal di li nga xam yi rek mu daal di yónnee ay takk der ñu daal di barricade këram mu doon loo xam ne rek moom Ousmane Sonko mu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ba tax rek moom ki nga ne mooy njiitu réew mi di Macky Sall ci loole sa ñi nga xam ne ñooy avocat yu Ousmane Sonko ñu ngi woon foofee ca cité kër góor gi ngir rek ñu mën a ki nga xam ne mooy seen client waaye nag ñi nga xam ne ñooy takk der yi mayu leen benn accès boo xam ne rek ñoom dinañu mën a gisee ki nga xam ne mooy Ousmane Ousmane Sonko mu mel ni sax yi leen takk de li ñu nekk démb ba léegi jóge si ndax dañoo daal di gis ni ki démb tamit ñi nga xam ne yi la député ki si mel ni ñoom Guy Marius Sagna ak ak ñi di waa F24 bi ñu jógee doon na dem ca cité kër góor gi ngir rek gisee ki nga xam ne mooy njiital Pastef di Ousmane Sonko amuñu woon benn accès ngir rek ñu daal di gisee moom ba tax kii di Guy mari Sagna tamit mu daal di woon a génn di ko ñaawlu bu baax a baax waaye nag kii di Farba Ngom tamit daal nay génn rek def ab déclaration mu daal di xam ni rek kii di président Macky Sall dafa war a jël ay responsabilité am ngir rek jàmmarloo ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ngir ge ci loole sax moom Farba Ngom mu daal di xam ne rek du dellu gannaaw benn yoon ci jàppale bi nga xamante ni rek muñ koy jàppale kii di président de la république di Macky Sall gannaaw rek bi ñu taalee ab këram ci loole sax mu daal di xam le ni kii di Macky Sall dafa war a jël ay responsabilité am ngir rek mu daal di teg place am kii di njiitalu Pastef di Ousmane Sonko